yi école yi ñëw participer en masse tey am nañu lu toll nii 1500 xale yu ñëw bokk ci kontaan soo xoolee bu baax ah, toute la communauté américaine britannique euh, suédois yu ne fi nekk ak ñëpp Gambie yu jóge bi ñëw ñoo ñëpp ñëw nañu bokk ci événement bi am nañu euh, lu ñu doon wut lu ñu wut mooy ak programme USAID buy jàppale jàngum xale yu jigéen yi si dëkk bi lu ñu doon wut wuta wut ay partenaires yu ñu jàppale pour ñu wut ay moyens pour Euh, gën a dëgëral loolu. mënuñu dul kontaan ci euh, participation massive bu ñu ko bu ñu xam tey. voilà bàyyi ngeen dañ koy jeexalee.